suñu mbokk yi jàkkaaru ci nuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu santatee yàlla julliwaat ci yonente bi Moustapha sallallahu alayhi salaam santaat bu baax suñu yaakaar tey ak ëllëg di ko tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci di leen ziyaar dellu si di leen ndokkeel ci di leen jaajëfatu bu baax a baax di jiital ci nuyu beeg siyaar bi ko tedd ki Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalifa général kulu di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk wëram ak mbooleem njaboot ak cheikhul xaddim gépp ni ma koy faral di waxee saa su nekk kenn ku nekk xam na ni Serigne Touba si Sidil Mokhtar Mbacke bi mu fi toogee toogaayub cheikhul xaddim bi wut fi magam di sell ji di El Hadj Bara Mbacke falilu kenn gisul lu mu bëgg lu may li nga xamante ni mooy yéen bi ko way juróom yi yéen maam ji sell ji di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yéen ko mu àggale ko kenn gisul lu mu bëgg itam lu may benn jullit ñi waaye itam kenn gisul lu mu bëgg itam lu may jumaay ku tedd ki di Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul mu gën koo méngale ak jamono kon nag ñëpp war nañ koo ñaanal mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér ginnaaw nag bi nga xamante ni ñi ngi ci wàccaayu màggalu Mbàkke Kajoor su diggante ak Mbàkke Kajoor des ci benn fan rek ñuy fàttaliku tey jàmbaar ji nga xamante ni moo di Seex Muhammadul Amin Baara Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul tey jii nag moo tax ñu ñëw teew ci kenn koo xamante ni la Seexul Xaadim Xaadim Rasuul mu di suriyatan tayyibatan tu jadidu nax jëne bi el Moustapha taj tahidu da koy firndeel moom mii yaakaar naa itam bërki démb am na benn waxtaankat bu mag boo xamante ni wax na ne euh, Serigne Bara nekkoon na koo xamante ni soo ko gisee kenn dugg ko du yomb waaye soo ko duggee ba ci biiram xam ni moo gën a yaatu moo gën a laabir moo gën a ëmbal euh, euh, lépp loo xamante ni nit ki dina ko ëmb ci tuyaaba ëmbal ko njariñ ci nit ñi Serigne Bara daa feesoon dell ci côté boobu kon nag mu mel ni tey ñi ngi ki nga xamante ni moo di Cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacké ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Baara Mati lay moom sëriñ Touba Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke moom itam di borom taxawaay bu am solo boo xamante ni gis nañ ko ci wetu sëriñ bi waaye itam gis nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba waaye itam fépp foo xamante ni lislaam a nga fa ci sëriñ Touba Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke war faa àddu ma nga cay dox comme tulaayu kàttanam ñu ñor koo ñaar yàlla guddal fanam yokk wéram moo tax nag ñu fa yéene koo jébbal kàddu gi mu nuyoog mbokki taalibe yi waaye itam nag nuyoo laaj bi ñuy ànd euh, Cheikh Mouhamadul Amin Euh, tay ñi ngi fàttaliku sa mam ju sel ja di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Khadim Rasoul lan nga ñu mëna fatali ci ay jikoom waye tam dekk bu sel bi ñu nekk tay leen di wax jeuf Serigne Touba ni santat ci jotaay bi ñu tok ci susu tedd si fi nga xamni yag nañ koy wax waaye nak fokk ñu liko waxat ndax sun borom. moo ko dogale noonu mu neexul mu defe ko noonu kon waxtu nekk dañ ko wax di ko waxaat bi ñu waxee asalaamaaleykum ba noppi di ñaanal Cheikh Sidi Mokhtar yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal mboolem koo xam ni yaa ngi ci tënta Cheikh Cheikh Sidi Mokhtar yàlla defal fan gudd ak wér yaram sama borom sottil murit yi xewal yu ñu foogewul fu mu jógewul ba lu ñu bëgg seen jox ñu mën koo def ndax nun murit xewal rek moo nu mën a jëriñ xewal googu it liggéey rek na koy mën a may liggéey boobu it am na fi mënees na ko kon nag yàlla na ci yàlla jàppale li tax mu ubbee foofu mooy fii ñu toog tey muy Mbàkke Kajoor ci ku tedd kooku nga ma laaj muy mu Cheikh Mamadou Lamine ku tedd ki nga xam ne daawul jaar ci tur daa wax ku baax ka fa njëriñ Mm-hmm. liggéey mu rëy bii nga xam ni lépp ci la aju ba ku nekk jóg wut si ko xemmem ko mm-hmm. yaakaar ne sa bëgg-bëgg ngi fi ba tax nga wut si ko boo yaakaar ne bëgg-bëgg waaye gis nga loo fi bëgg loo xam ne da nga ko bëgg jël jàll delluwaat. Mm-hmm. ci dëkk bii la ko borom tàmbalee dëkk bii ki nga xam ni mooy Cheikh Mamadou Lamine Bara fi la ko dëkk bi ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Lamine Bara fi la génnee mm-hmm. yóbbu ko Touba. dëkk bi it tey fii ñu wax ak yéen it ki ko mooy Cheikh Mamadou Lamine Bara mooy sa moo dellusiwaat di jëmmi Serigne Touba ci Cheikh Mamadou mm-hmm. mel ni Serigne Bara dellusiwaat di dellusiwaat di wanewaat ci melokaan wu ne. Mm-hmm. déedéet Serigne Touba la mooy melokaan wu nekk moo ko moom kon. jukkoy Serigne Baara mooy jukkoy Cheikh Sidi Mokhtar ji fi nekk kooku jëruñu sori. Hmm. ba ca des mooy yërmandeem ci jaam yi mooy nii Cheikh Sidi Mokhtar mel. Hmm. bëgg tawfeexam jaam ñi mooy li ma njëkkee. Hmm. kon nun sant ak nangu te dëggal te jublu fi mu jublu rek moo nu war. ndax loolu li ma ci bëgg a wax mooy. fii nga xamni fi la seigne touba tambalo liggéey bu réem ana ko mag ñu sa lañam ko andalon bam mu fi lenn rek taxon mu ko moy mm-hmm. rew mi am jam l'islam ñom rew mi am na jàmm lislaam bi ñong way lutax mu ñong mm-hmm. ak lu koy sàmm mm-hmm. loola ci la mom serigne touba mii fi nek tay tuddu fi jog bu mukk ci loolu la nekk ci la nekkul. mel ni sàmm ko it mënuluñ ci dara sëriñ Tuubaa lu jéem ko di ko sant seen borom te nekk ci lim santaan ñu di ko def. jub jubal nangoo liggéey bañ a tooñ ci kuñ tooñ jéggal ko. lan koy mayit mooy fexe ba lan nu xamee woon nu nekk ci. mooy bennoo murid yi ci kennal sëriñ Tuubaa ci ki fi nekkal. mooy tax luñ bëgg mën koo am luñ bëgg sëriñ bi fekk nu ci. moom la ñuy wegee moom la ñuy suturaale moom la ñuy joxe lu bëgg ci moom la ko joxe loolu nag bis boo xamee dem nañ ba ba kenn ku nekk def ni yow yow yow yow yow a maanaam man joo gis rek am lëm rek nga fay fekk lu fi am sëñ Tuubaa ko fi def kon bisub Cheikh Mouhamadou Lamine ci gën a àddunaam daa am lu mu jàngale ndax am lu sëñ waxoon kon waxtu wu dikkatee lu xew ak fu mu mën a xew war nañ ko mën a waxtaanee ndax njëriñul doomu aadama yi rek képp la ginnaaw sëriñ Tuubaa ma nga xayma seen wi ba mu gënee àdduna moo ci wax ay waxam ñum doon liggéeyloo wan leen seen ngërëm ñëw na tey ki indaale na ko du fi jóg ba mukk nag bis bu bu ñëwetee njëriñ loolu daa war di tasaaroo ci doomu yi nga xam ne ñoo des ci kaw suuf mm-hmm. ndax jëmmi moom dafay des ba faw du fi jóge kon ñun ñi nga xam ne ñooy alalam tam sàmmal na boppam. war na na mën a sàmm ci tënku ndax soxlu dara ci nun amul lenn lu ko maa defal nun nooy am njariñ ci moom waaye sëriñ moom noppi na kon njàngat li ci foofu lay jëm wane ni nun ñi nga xam ne ñooy taalibe sëriñ Touba di ay murit te sëriñ Abdoulaye ni waxoon ni ay ay murit lañ te ay saar lañ fas yéene doon ay saar lañ fas yéene mm-hmm. kon la tàmbalee ci sëñ Mour Moustapha yal na yàlla sotti ay xewal ci moom ak sañ Fallu ak mboolem koo xam ne jaar na fi yal na yàlla sotti ay xewal ci moom ak sama jàmbaari bopp ji muy Cheikh Sadio Mbacké mm-hmm. yal na yàlla sotti ay ci moom ak suñ jàmbaar ji nga xam ni musta woote bis bi loolu ba nga saabal soxlaa liggéey ko faan ci ci jiwaar Cheikh muy Cheikh leen baaraam sëñ Fallu moom itam yàlla na ko yàlla sotti ay xewal fayal na ko kon day mel ni bis bi la fi nekkoon démb sëñ Mourou Ba dañ ko doxal sëñ di ko doxal moo si ba ci sëñ bi loolu day yokk waaye di wàññeeku mooy wane Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ne sëriñ Touba defal na ko loo xam ni bariwul ñu ko defal ndax sëriñ Touba foofu jëm njabootam lamp jant la butum àdduna boo téye la nga def moom rek mooy jant ba. waaye nag li ci gën a yéeme mooy ginnaaw moom sëriñ bi fii la euh, tàmbalee woon liggéeyam bi. Mm-hmm. day mel ni am na lu mu waxoon dana ah Mbacke la tàmbalee Cheikh Mawlana Bara mi fi nek tay fi le ko euh, fek wat ko fek wat ko Touba kan amna yu nek ci dekk bi yo xamne yalla yàlla nañ yàlla mbóot yooyu yàlla nañ ko yàlla sotti kaw. Mm. lay tax ñu mën ko sa ko nak moy andal nek ben di diglu digel bu ñu digel ñu def ñu tere ñu bay mm. mo ne may do tay mo ñu may doole ëlëk moy jëmmi Cheikh mohammed Lamine jëmmi Cheikh mohammed jëmmi Serigne Touba serigne bi amu def fi bopam lu mu yori Serigne Touba la. Mm. Serigne bi Cheikh Sidi mi amu def fi bopam lu am Serigne Touba la ba fi toge di Serigne Touba lu fi ñew dal nak Serigne Touba la ko war mu di ko def delloo ko ci Serigne Touba amul soxla ci lenn lu liggéeyal Serigne Touba waxtu woo wu xëyee ba génn njaboot Serigne Touba gi rek dayre yi dongo yi daara yi ba nit si àdduna yi sax maanaam am nañ ci ak ak yëg ci seen bopp ba xam nañ sëñ bi lii rek mooy liggéeyam ku jaarul ci cadre boobu rek daanaka doo mën a jariñ ci moom mm. kon moom liggéeyal Sëñ Tuubaa la fi nekk amul alli boppam àll ji nekk alli sëriñ Tuubaa la mu jël ko delloo ko ci sëriñ Tuubaa waaye moom amul alli boppam kon loolu moom sëriñ Tuubaa fi si liggéey boppam noonu la war a mane melit ndax ko xam way juróom wa wi nga xam ne dundaa muy soxna mati lay yàlla na sa borom sotti ay xewel ci kawam noonu rek la meloon lu mu masaam jox na ko sëñ Baara mosaa moom moo moom mosaa mu ne ko seex seex siidi la ko daa wax moom seex siidi seex siidi Muxtaar loo ñàkkatee rek boo léegi da nga am lu ko ëpp wallahi lancim loo ñàkkatee bu léegi da nga am la ko ëpp daan la jox benn misaal fii ci fii mu dëkk tey muy Kër na mm-hmm. mas naa dugg ci Cilmaxa altine bim dikkee bay tolloo kër ki fii tax ñu wax Kër Ngana kër Baye Moussa Daara Xuma mm-hmm. mu seen këram gi yëpp dafa dóom dara luy nekkum ni nekkatu fa moom watiru fas la yor. bu ko ñuy wax mbay sàll mi tam yàlla na ko yàlla yërëm boobu moo yor salaam la ko tuddee woon moom naka jëkk ko yàgg yàgg bu jàmm salaam la tuddee woon fas woowa fasam woowa. fas wa keroog ba mu daanu dañ euh, ko na kéemaane na keroog. soxna lay moo di fekk mu taxaw mu ne ko seex Sidi Moutar mu ne ko lii ab joxoñ la loo bëgg da nga ko am. Hmm. keroo waa Lappe gii ak bu ñu mbay Moutar ñoo fa takk indi benn néeg euh, dafa defañ ko ci kero ci lañ fanaan ñu defal son son mat lay defaraat mbaar mu fanaan ca bañ xëyee la waa tund wi jóg defaraat defaraat kër gi. Hmm. lu fa def nit a fa def ci àllam waaye moom nee ba mu dëkkee woon muy néegum ñax mu nekk nii ba fii may waxee mu demee néeg ba nga fa. Hmm. mbaar moom daan toog moom fa defoon ba nekk nii mu dayre bi nuyoo fi lay tax ma ne lu fi am moomu ko àll sëñ Tuubaa te loolu moom ma gëm moom lay jëfe hmm. kon nun ñi nga xam ne ay taalibi sëriñ Tuubaa lañ hmm. doon tànnee fi sëriñ Tuubaa war na roy ci moom ci doxin waxin ak jëfam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh